xibaaru hip hop ngay am ak moom honestly loo bëgg xam ci game bi ko ko waxtoom bul ko tardé underground over the ground fii ñëpp play prôné da nga am talent di def lu naaj foofu mënta nekk da lay jëli wéel ba kanaa sa wéel foofu la da nga jàpp ci game bi mu jëm kanam ko urbain lépp ngay am back then. si graffiti rap R&B music concert wax ko sa gaay wax ko sa gaay def mooy yëngal wax ko sa gaay wax ko sa gaay def mooy yëngal mooy yëngal ci kaw

bon ci kanam tuuti tamit euh, nañ gën a yaatal ak euh, benn euh, naatongom Tibba noonu lay demee léegi dañ koy bàyyi mu présenté wu mu waxtaan yi nga xam ne dañu faral di suivre def Connection TV Sénégal. Connection bi moom Kajoor kenn dootu ko laajte parce que xam rek waaw def naa lu nekk xam nga dem naa fu nekk aussi tam xam nga mooy loolu quoi donc depuis sama carrière ba tey xam maa ngi représenté di teewal Kajoor gi xam nga mooy loolu. wali son la dal, gars yi xam nañ jëmm ji quoi ok comme ni mu ko waxee muy euh, Warizone mak mom moom yàgg nañoo euh plateau euh, bon euh, am na nan naan Warizone King di Kayor. léegi la moo waral King di Kayo. Wa King bi job la rek job ba agsi fi rek xam nga parce que King yombul quoi nek King c'est c'est un peu difficile même si accès gul yenn niveau yi mais. ñu ngi rampe quoi peut-être mën na am suñu suñu job moo nice wala li ñuy def moom la gaa yi gis ba tax ñu ñuy woowee king bi du question de ñoo tëb tëb rek woowe suñu bopp. king ak non attends foofu dama lay dagg euh, king king bi est-ce que yow yaay jékki-jékki nga bëgg impose sa bopp yow yaay king. te te te te je crois que yow yow rek nekkoo nekkoo Kayor. waaw mais bu mu naan Kayor bu mu naan Kayor côté Ngaye lay wax. waaw mais peut-être côté Ngaye am na yeneen rappeurs yi nga xam ne fekkoon nga leen fa. Ah, mais te ba léegi ña nga fa léegi yow yow yow nga bëgg ñu imposer wu que que nga ni yow yaay king. xam nga ku nekk ak sa travail ku ne ak li ngay def peut-être man lu may développé lu may def moom la gars yi gis seen bopp xam ba tey ñu ne ma king Kajoor loolu peut mën na ne quoi mais du tëb tëb man maa xam nga tagg samay porte wala di sonn ay kay king Kajoor dama prouvé dama job gars yi tudd ma king Kajoor waaw mais du loo xam ne dama ñëw xam nga one day rek mu tudd sama bopp king Kajoor dama prouvé. waaw mais mais prouvé boobu prouvé boobu prouvé boobu bu njëkk gisoon nañu que waa Dizon euh, am na programme yu bëri yoo xam ne danaan ñëw ngaay mais en certain moment a nga raar da raar Kayor gisu ñëw nga instant bi que waa Dizon ñëw na teg fa benn concert wala dara lan moo waral loolu waaw peut-être xam xam nga parfois il fallait nga dem parce que ñu ngi naa xam euh, euh, parfois il fallait nga dem mu di doole waaw il faut nga dem mu di expérience parce que hip hop expérience la laaj connaissance quoi doo xëy xëy rek toog si benn coin xam nga damay def musique mais musique da nga koy jàngi xam nga ngay dem nga def fii ay record xam nga dem jàngi musique surtout loolu noonu quoi mais ñun dañoo dem dama dama jógee foofu noonu ma dem waaw dem xam nga dem foo xamante si nii hip hop bi dina ma fay foofu noonu ma dem. Hmm, ok kon yow da gis que ni euh, hip hop fay loo côté euh, euh, Kayor parce que ba tey Kébémer Kébémer je crois Kayor la bokk.

bu ay bras te fii Kébé lu ma fi indi mooy jàng moo fi indi woon ci la amee connaissance ak Tiba xam nga ba réaliser tout ça xam nga ba nekk si fii tey quoi mais waxuma jëluma rek xam nga ngaay xam waaw may ma pouvoir may ma doole. bu loolu nee nga nee nga jàng moo la indi Kébémer. oui léegi tamit euh, si côté étude yi. toppoo rab bi euh, ba ba ba rab yàq la si njàng. wala nan la fa demee wala euh, wala wala njàng bi yaa ngi koy def ba léegi wala. Ah, maa ngi jàng. maa ngi jàng maa ngi def hip hop maa ngi jàng maa ngi def musique day gën a neex xam nga di gën a di gën a yëngu quoi parce que euh, pour man xam euh, ci sama xel hip hop ak jàng ñoo mën a ànd quoi déjà soo bàyyee jàng rek du ma li nga bëgg am carrément ni nga ko am mais di nga am niveau boo toll bu boo booy toll xama i il jàng moo lay compléter te man pour ma am dara ci hip hop. il faut ma connaissance étude pour être au-delà quoi c'est ça. ok léegi euh, dañuy gay mhm. euh, au niveau de léegi Nous parce que nous sommes au moo la euh, mais vous nañ que ni bi pour suivre suivre yaa euh, hip hop bi. euh, sa connexion sa connexion au niveau qui waaw sama connexion mën naa ni lépp type la quoi parce que waaw moom moo réagir rek tey bu tayee xam nga bu ñu taxee wadi son ñu xam quoi carrément euh, grâce à lui quoi waaw parce que moo waral lépp moom moo xam moom moo yoroon is jooy man du amoon ma dara amoon ma matériel amoon ma tus xam nga amoon ma dara dara moom moo ñëw xam nga taf ma ci boppam woo ma pour ñu liggéey xam nga chaque jour may dem répétition di bind xam muy enregistré di ma tëggal ay bit xam ñuy dem ci concert yi xam mën naa ni lépp moom la quoi waaw boo xoolee boo demee yi boo demee Wadison boo tapé Wadison wala nga tapé Tiba xam nga ñu ñaan ngay gis quoi donc link boobu noonu dëgg la mënul dañ euh, dafa nekk loo xamante si nii lu mënul dañ la quoi donc parce que moom moo waral lépp tey su ma accès fii grâce à lui waaw moom laa xamante ne fii connaissance euh, bien avant xam waaw ñu procéder di procéder ba jusqu'à présent quoi connaissance bi euh, tibala quoi mo ah, motax moo ma am lii tey Kébémer quoi waaw. ok noonu lay demee waxna relation bi nga xam amna ko ak euh, tibba ak tamit euh, noonu la def ba imposé wu au niveau fini nii ci Kébémer léegi dañuy dañuy dem ci mm, tibba ñu bàyyi fi moom tamit moom wax ñi nga xam dañuy suivre Teuf Connection TV. moom comme ni ko waxee sànq. ñu waxna relation ak tibba léegi dañuy bàyyi tamit euh, Tibba euh, présenté wu ñi nga xam ne dañuy suivre Teuf Connection TV Sénégal. salaamaaleykum gars yi bàyyi xel Teuf Connection TV Sénégal acca man la Tibba aka Foulay Thierry Beat aka Tibba Nice Game waaw maa ngi bokk ci maa ngi bokkoon ci benn groupe euh, bu tudd Nice Game débuté rap en 2013 depuis boobu léegi maa ngi ci rap bi ma rek loo tax ñu ma Tippa l'homme dur ku dëgër ki eh. hmm. léegi dama bëggoon nga xam ne tuuti euh, sa relation ak euh, waa Horizon nan la demee nan ngeen def ba xamante wala comme ñu bëri rek hip hop moo leen boolee hmm. nan nan nan ngeen def ba xamante ñaar. waaw sama relation ak Wadison moom mii li tax ma xam ko muy sama benn copain bu ñuy wax Milkos the boos parce que bi ñu tegee suñu studio en 2009 2019 lan ko teg. après ci laa ko dóoraloon ay son lool après léegi moom ñoom ñaar ñu doon déggante Facebook la doon connecté déggante quoi mu ne nga am na benn sama benn boy bu nekk sama koñ léegi ci moom boole moom ña xamante après ñu job léegi ma jobal ko premier sang woon benn sang bu ma ko mooy li ma hip hop jaral ci laa ko njëkk jobale foofu la njëkk a xamante daal foofu la link bi jógee yuy dem di dem ba jamono yi toll nii quoi. mais dem nañ ba si biir gis leen que ni connexion boobu noonu. tiim na leneen parce que am na son yi nga xam ni maa ngi koy dégg yéen ñaar ngeen def filtering wala lan la wala da ngeen dem ba en certain moment ngeen former crew wala lan. non juste dañ def filtering rek parce que moom ci studio bi ci la doon job ci lañ job man dim rapport la du ma du ma anim du ma dije rek yam ci rapport la animateur la ak leneen ak leneen loo xam ngi ci biir quoi mais damay rab. yenn saa yi mun amee bu ma amee idée wala mu am idée rek day ñëw ñu teg benn projet bu ndaw ñu def ay sound def featuring loolu la rek. léegi yow boo doon euh, wax. maanaam euh, dara ci Warizone yow yow yow la nga koy euh, waxal. waaw muy li ma ko mën a waxal muy maanaam ku am talent la li ma xam ci moom am na talent mën na rap xam na li muy def bëgg na aussi waaw man loolu laa xam ci moom muy nit ku correct aussi. début suñu ànd ba léegi waaw gisuma ci dara daal lu xam man jàpp naa lii war na ma metti parce que fépp fu ma jaarloo moo nee ko jaaral nii danaan ma waaw moo ko waxee bàyyi lii mu bàyyi parce que gëm na li muy def quoi te lépp lu xam rek musique day tax mu lépp lu xam rek musique am day tax mu avancé dayo da koy def kooku moom mooy nit ku xam moom li muy def gëm na ko quoi. Hmm. léegi euh, moom dafa ñëw Kébémer pour jàng. Hmm. yow yow li ma lay laaj mooy ba xam yow jàng nga Kébémer. ba xam ba xam yàgg nga Kébémer. ba xam yàgg naa Kébémer. waaw waaw man Kébémer laa juddoo. Hmm. Euh, na Kébémer la euh, juddoo. Hmm. léegi euh, question bi mu la bëgg a posé. Hmm. mooy yow mi nga xam ne dëkk nga Kébémer maanaam bi bopp bi nan la fi nan la fi demee. nan la fi évolué waaw nan la fi évolué nan la fa demee. waaw hip hop fii moom fii moom sant yàlla quoi donte na hip hop bi doonul affaire bi gënul la kawe daal am na yenn yenn dëkk yu xam ñoo dund. mais fii ñu ngi tale daal di jéem a xëcc ndànk ndànk di jéem a def yenn projet pour mën a xam nga hip hop bi gën a dekk kajoor moom hip hop bi dafay dee carrément mais toujours yi ñuy def ay projet pour xam nga rek mën a hip bi mën a jug bañ a dee def ay show def ay featuring def ay concert pour rek hip hop fii moom gën a jug mais en général hip hop moom fii taxu ko demee yenn demee noonu dañuy taxale nii rek di jóg ka daal. loolu la demee. muy muy euh, Tibba comme ni mu leen ko waxoon sànq ba tey dañuy poursuivre sunu émission euh, couleur urbaine version mbedd waa zone moo nekk euh, suñu invité léegi dañuy dem ñu jàllaat si moom moom ah. ba tey ñu kon ne ak waa zone yow bi nga nekkee ci rab bi ba léegi ah yan expérience nga si en plus léegi si biir expérience boobu noonu lan ak lan ak lan lay waa zone di def. yeah waaw hip hop may na ma lu bari may na ma euh, ma doon audition boo xamante si nii peut-être euh, du ma ni euh, gars yëpp xam nañ ko mais plupart ci gars yi xam xam nañ ko quoi donc doon naa doon naa audition boo xamante si nii am naa expérience ci li may def mu hip hop xam aussi tam jaanaa fu bëri hip hop boobu moo ma poussé xam ma jaar fu bëri aussi tam doon technicien xam nga grâce à hip hop motax ma ma mën lol non xam diimu ci walu mom xam euh ici jo xam waaw wéré fa quoi ci walum technicien xam dama yëngu ci point yu bari donc hip hop mo pousser lol non quoi té amna lo xamanteni euh comme li nga wax rek hip hop bob no mo tourné wat mayat ma lol non quoi muy respect bi xam aussi tam gaay bëggal ma seen bop fuma tourné ñu may béggé xam nga donc loolu hip hop moo moo ma ko may quoi waaw. peut-être mm. ma ko may ah. léegi bu ñu doon def euh, rétro tuuti euh, si sa côté jaar-jaar ci hip hop bi euh, bi nga tàmbalee def hip hop ba léegi ñàkkul jot nga dund lu neex ak lu naqari léegi yooyu lañ bëgg nga nga nga wax ñu si tuuti. ah mais tar rek tar rek tar metti metti metti xam parce que. auparavant moom man moom sama lépp côté parents yi la woon quoi waaw parce que auparavant dañoo nekk ñoo xam si nii xam ay parent dañ may jàppale ko quoi mais auparavant moom metti woon na parce que bëggul woon ma def musique quoi su ñoom séntu woon nañ ma feneen fu dul musique mais peut-être sama destin la loolu la yàlla dogal waaw auparavant nag metti woon na su may dem concert wala euh, euh, su may dem ci studio yi donc wala su may fekk sax yenn artistes yi donc. dañuy am ranking ci seen doom di frek ñooñu wala seen doom lu muy dem studio wala lu muy dem concert yi waaw bi ñu demee nag xam ñu ni moo léegi comme que yow lii mooy sa option li nga bëgg donc lay bàyyi nga continuer si mais nga waaye sa jàng bi aussi buñ ko fowee moo tax man may reyante euh, éducation bi pour xam rek euh, études yi donc pour réussir su quoi mais nag maintenant xam ak parent yi danañ le loo xamante ni c'est un peu difficile surtout son papa son père moom xaw naa am confiance ci man mais paa bi moom métti woon léegi nag tey alhamdulilah ñu ngi may soutenir dans tous les côtés xam donc loolu laa doon ñaan mes parents sont derrière moi quoi. ok légui euh, lan moo le gën a neex euh, sa carrière. waaw sama carrière lu ma si gën neex na quoi ah, t'as déjà Warisson bi ma doon rek neex na ma si sama carrière quoi. xam ak euh, nit ñi ma yàlla booleel muy ay nit yoo xamante nii ay nit yu diñ yoo xam si tey jii su ma leen nee gars yi jug leen ñu jug su ma leen nee bàyyi leen ñu bàyyi te fu mu jëm ñu may soutenir xam benn si Tiba xam nga Amzo xam ak yeneen gars ay Diop borom saak bi xam nga ñëpp gars yi dañu may soutenir xam donc loolu rek euh, euh, bokk na si li ma gën a neex ci hip hop te demaguñ fenn ah. waaw. léegi bu ñu doon tracé sa carrière ci côté sa côté walu son. Euh, fi mu ne nii bu ñu doon wax euh, Warizone euh, ñaata son ñaata son la am en plus tamit est-ce que Warizone am na album wala wala wala nan la fa dem waaw son yi moom wax dëgg fa yàlla moom mënu ma la wax <laughs> ñaata son laa def parce que ñun moom is joo la xam nga waaw suñu centre def projet rek dañ koy mën nañu xëy comme avant studio bi avant studio bi waaw avant studio bi bëri woon na parce que parce que loolu laa lay wax avant euh, euh, ñun man yàlla maa am dimbali xam nga parce que ngaay maa ngi woon ci zone xam nga tey euh, ma ñëw Kébémer dal ci Tiba donc Tiba noonu la demee xam ñu jógee si loolu bi ma nekkee ci zone nag foofu deux sons laa fa def xam nga foofu ñëw Kébémer donc mais nag li gën a accéléré sama sama sama carrière mooy rencontre bi moom ak Didier Tiba waaw mun mënuma la wax ñaata son lañ def man a moom mm. parce que damay xeexee rek saa mu ñëw di tëgg bi ma ni ko fàll na ko dal ok léegi ñëw nañ ni fekk la studio nga toog ñàkkul am na looy préparé <laughs> wala na la fa demee léegi dañuy dañuy ñëw nga expliqué ñu tuuti ba xam dafa am looy waajal parce que ñëw nañ fekk la nga toog nii ak euh, Tiba mm-hmm. waaw waaw li may waajal moom maay waaj sorti Mixtape Mixtape 10 son xam lan lañ prévenir donc mystère bi nag gis na trop am na ay featuring xam euh, am na yoo xamante ni euh, individuel la donc Tiba moo produit bi di yëpp parce que ñun lépp lu ñuy def dañ koy def xam affaire boo xam si culture locale lay doon quoi xam dañu bëgg lépp lu nga xam ñoo ko defal suñu bopp suñu expérience la euh, ñu génn ko gars yi goûté ko muy benn mystère boo xam si ni mu ngi tudd xippil xool mystère bi xippil xool la tudd dèjà def nañ son yëpp xam nga donc yi génn yi tam xam nga génn ñu ngi def ay clip aussi tam Omzo mooy réali réalisation xibaaru hip hop ngay am ak moom en exclu loo bëgg xam ci game bi ko ko waxtoom bul ko tardé underground over the ground fii ñëpp lay prôné da nga am talent di def lu naaj foofu mënta nekk da lay jëli wéel ba foofu la da nga jàpp ci game bi mu jëm kanam ko urbain lépp ngay am breakdance sa graffiti rock R&B music concert wax ko sa gaay wax sa gaay def mooy yëngal wax sa gaay wax ko sa gaay def mooy yëngal mooy yëngal ci kaw ñu yëngal